Adat mungkin cepulen supaya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 mbokki internet yi rawatina yéen ñi sivur sen sen bi di RTV Dakar di ànd ak ñun ci sen émission bi di njëriñu alquran ñi ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak tawfiq di fas yéene ñëwaat ci suñu jotaayu tey fa tabaarakallaahu ñu bëgg a nag ci saar wu nga xam ni limu mu ëmb ci ay secret ak i njariñ kenn mënu cee wax ba yëngal ko muy sóoratu yaasin muy xalbul quraan waaw yaasin nag di turu yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam tax tur wi ci boppam rek li mu ëmb ci ay secret kenn mënu ko jeexal su ko defee muy saar woo xam ni dem na ba ci quatre vingt euh, ñi daan ci def lu ne ndax daan nañu ci taal nit ci mu biinam yooyu ndax mi ngi ànd ak juróom ñaari mubiin moom saar wi juróom-ñaari mubin yooyu bu ko mag ñi daan boole ak seen juróom-ñaari sondeel mën nañu ci taal nit léegi ba àdduna yépp di ko tudd wante it noon lañu ci mën a fayee nit ba kenn dootu ko tudd ndax alquran lu nekk ngi ci biir su ko defee ndeysaan euh, bu ñu ko daan booleeg seen juróom-ñaari sondeel ya ba boole ko euh, rawxaanu euh, bërihut la mu xana joxatin am na ca benn ca rawxaan ya suñ ko boolee ak moom nit ku ñëpp di mën nañ ko ci fay léegi ba kenn dootu ko tudd ci kàttanu yàlla wante noonu lañu ci mën a taalee nit ba àdduna yépp di ko tudd ndax yàlla ak e, ñaan moo mën lu ne xëy na yooyu nag e, kenn du ko mën a wax ba mu jeex ndax nit ñi ñoo yemul su ko defee saar boobu di yaasin muy saar wu nga xam ni moom lañu wax ni lépp lu ko nit ki jàngee rek mu fekk ko ci loolu ata ko noonu rek dafa baax wante loo gis dafa am ay secret dafa am ay serru secret yooyu nag nga xam ni mooy laxasu ci biir euh, xëy na am na ca yu mën a feeñ waaye am na ci yu mënul feeñ waaw bu ko defee su fekkee ni nit ki dafa am ajo ajo bu ko ñor lool te mu bëgg ca ñaan yàlla ci wàllu yaasin mën na ko jaar ci yoon bi ñuy wax te mooy na jàng yaasin waaye lu jiitu mu koy jàng dafay njëkk a def fatiha ak astaghfirullah alqayumiya muy astaghfirullah azim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wala alxay alqayum <laughs> ah, su ko defee bu ko defee ñetti yoon euh, mu soog a jàng yasin waaye buy jàng yasin su ñëwee ba ci aaya bi nga xam ni mooy salaamun xawlan min rabbin rahimin salaamun xawlan min rabbin rahimin muy aaya bu ama am solo xam naa du ñàkk ñu ñëw ci bés bu ñëwee ba ci aaya boobu dafa koy baamu ci cent vingt muy limu su ñëwee ba ci aaya boobu di salaamun qawlan min rabbin rahim dafay taxaw su taxawee mu jàng salaamun qawlan min rabbin rahimin cent vingt neuf muy limu latif su fekkee ni nag aajo la bu nga xam ni dafay ñaan yàlla pour mu jox ko ko su boobaa latif bi 129 yi dafay tàmbalee li gën a tuuti teg ca la ca ëpp muy su paree ci salaamun xawlan min rabbin rahim mu jàng turu yàlla bi ñu wax mooti waaw yaa mooti mu jàng ko moom itam yaa mooti 129 su ko defé su paré su fekkee ni mën salatul salaatul mu jàng ko 129 su ko munul mu salatu ala nabi bu mu mën mu jàng ko 129 moy salamun khawlan min rabbin rahim 129 ya mu'ti 129 salaatul faatihi 129 wala salaatu ala nabi boo mën su ko defé soo paré nak ci ngay soga motali sar bi ta soga motali sar bi li déssone ci sar bi ndax yaangi ci salamun hawlan min rabbin rahim nga soga motali li déssone ci sar bi soko ko nak nga soga ñaan sa aaju bi nga am insha allah ci kàttanu yalla kep ku ko def euh, tëra ajabal danga nga ca gis lu la yéem moo xam jal bu nga doon def te mooy dafa am loo doon yéetu bëgg yàlla jox la ko wala nga doon def daafon te mooy dafa am loo doon dàq su boobaa nag comme li ma waxoon su dee daafon ngay def ngay njëkkee cent yi soog a teg vingt neuf yi waaw yoon la ci yaasin pour ah, ñaan aajo waaw su fekkee nag nit la ku am ndigal ci jawharatul kamal su boobaa su jàngee faatiha ba jàng istigfaarul qayumiya ba ñett su ko mënee na def 65 jawhara alhamdulillah soog a tàmbali yaasin bi su ñëwee ba ci salaamun xawlan min rabbin rahim comme li ma waxoon mu baamu ko 129 jàng yaa moxti 129 jàng salaatal faatihi 129 soog a mottali li desoon ci asim bi su ko defee kooku euh, yoon la ci wàllu yaasin pour leen faj aajo ak am ay grade koo xam ni dafa bëgg yàlla jox ko ay grade ci wàllu àdduna walla ci wàllu fu muy liggéey wal xabul day taxit nit ki am li ñu tuddee xabul moy li wax farwo jar moy nit ñi ngay gis lu ne ñu def ba nit ñi yaakaande tay aduna tukki ta dara du ci mu ndax lutax day def jalbul mahabba wal mawatta day tax nit ki nit ñi dañu am ciofel ci mom dañ koy sop euh, nonu yit lay maye nit ki leer ci walu côté yalla su ko defee kay euh, secret la ci yaasin bu ama ama am solo moo tax su fekkee ni mënoo jàng yaasin mënoo jàng tur yooyu ñu wax sax boo amee sa soxla seetal ko wóolu nga jox ko ko ni ko ñaanal ma ci sama soxla sàngam lii nga may jàngal waaw incha allahu da nga gis ak euh, tawfiq ci kàttanu yàlla waaw su ko defee nag ñu jox leen benn secret bu nga xam ni moom xëy na nag bari na bari na wante lu nit ki def ba am ko jar na ko bari na mooy c'est-à-dire que mbind xaw na bari parce que mbind la waaw wante moom waxuma la yow mi ko utiliser mais ba ci say seuti setat ba ci say seuti setat da nga len di yobale ndax lan am doole guma am doole di dox ci walu wërsëg moy walu ubbeeku motax mbak ñi xam limay wax ni dañ da wax ni nit ki ak lo xer xer xer xer xer bul ko def mukk ci at mi ñaari yoon at mi fexeel ba na ko ci utiliser benn yoon waaye at mi loo xër xër bu ko ci def ñaari yoon moom su ko nit ki utiliser ala kulli xaalin moom dana nekk nit ku am wërsëg dana nekk nit ku ñëpp di dégg ci wàllu tedd nga ak teraanga te itam kenn mënu koo xañ lu mu am walla lu mu yor moom kenn mënul soo bëggoon a wax li ci aju yëpp ba mu jeex soo ko bëggoon a wax xëy na moom rek mooy nekk émission bi ci ay njariñam waaw euh, noonu nga xam ni noonu lañ koy sangoo noonu ñu koy sangoo euh, te ñi ngi koy sangoo zuuru aljuma kii ko def euh, zuuru aljuma mu sangu ci. wala ci sangu juuru aljuma moom ala kulli xaalin kenn du ko mën a bañ yuhibbuhu naas nit ñi ak moo xam nit ku mu doon nit ku xonq ku ñuul ku weex ak xeet bu mu mëna doon ku la gis incha allahu dana am cofeel ci yow noonu it la ko mag ñi daan defaree ba mu yegg ñu def ko ci béjjënu nag suul ko ci seen digg kër wala seen digg dëkk ca digg penc ma moom yooyu fa tabaarakallah moom ki ko xas ba def dootul jeexal dara incha allah waaye nag lu xaw a jafe la parce que suratu yaasin moo ko composé ak i aayaatam ak i ay ayaat yu mu àndal ak aayaatul rizq yi nga xam ni ñoo nekk ci biir alquran ndax alquran am na ay aayaatul rizq aay yoo xam ni ci la ñu tudd baatu risq bi firi wërsëg waaw muy aay yu xaw a bari euh, li may wax nag su fekkee danga ko bëgg a def yaa ngi bind euh, suratu yaasin wal quraan al hakim ba yaasin bi jeex wante diggante aaya bu ne ci yaasin bi wax naan la dem na ba 83 aaya digënte aya bu ne da nga fay duggal wa jaaltu lahu malan mamdudan wa jaaltu lahu malan mamdudan aya bo bind ci yasin bind wa jaaltu lahu malan mamdudan su ko defé ba yasin bi jeex nga tek fële bind aya bi may wax inna hadha la rizquna ma lahu min nafaadin إن هذا لرزقنا ما له من نفاد غبند آية بوبو 310 آه. إن هذا لرزقنا سو باري بند أهمون ساقكون حلعون يس اسم الجلال <laughs> موتا أه، بوكو دفي كين دولا لال آه. سو حسي بيتوليز كين دولا لال باسكو كولا لال ياقو ndax ismul jalal bi motax su ko defee nga bind ismul jalaal ahamun saqakun xalaon yas nga bind ko moom it 310 waaw soo paree nga bind walahum rizuquhum fiha bukratan wa asiyan moom itam nga bind ko limu ismul jalaal 644 moo tax càngaay la bu bu doy waar wante bu jafe nag waaye loo def pour def ko jar ndax réew sax soo ko bëggee yilif def ko soo soo bindee walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyan soo paree nga bind wa alqaytu alayka mahabbatan minni nga bind ko adadu mujibu te mooy bind yaa xaniyu yaa muxni yaa karimu yaa xaniyu yaa muxni yaa karimu nga bind ko 670 yaa ganiyu yaa yaa mugni ñetti tur boo paree moom itam da koy bind 670 euh, waaw muy yaa yaa kari yaa ganiyu yaa yaa karimu su ko defee ginnaaw bi nga bindee yooyu ba noppi teg ak yaasin bi nga xam ni mi ngi ànd ak وجعلت له مالا ممدودا سو باري نك غاي سوغ بيند ايات الرزق ايات الرزق بارينا كي بير القران سو كو ديفه دنج كوي генي ييب هو مما رزقناهم ينفقون فاخرج به من الثمرات رزقا لكم موي بنين ايه كلما رزقوا منها ثمرة رزقا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل muy benen aya nonu nga koy topé ba ayatu rizq yi jeex yépp dang koy bind ben aya bo bind ci ayatu rizq yi nga bind ñaan bi may wax allahumma rzuqna khayra dunya wa ni'mal akhirah allahumma rzuqna khayra dunya wa ni'mal akhirah yàlla yàlla ngi ma wërsëgalee xéewalu aduna ak xéewalu al al-akhirah saadatu barayni su ko defee ñaan boobu moom ngay def aaya boo bind ci aayatu risq yi nga bind ko aayatu risq xaw na bari nag aaya boo bind nga bind ñaan boobu ba mu yegg lii ma wax ni yëpp nag soo paree moom ngay boole moom mooy nekk euh, saafara bi mooy nekk cangaay bi su ko defee nga boole ko ak xaatimu murabba bi xëy na mbokk bi dina ko feñal ci écran bi so paré soo ko ak mom nak nga tejé ko alhamdulillahi rabbil alamin salatu ala nabi insha allah rabbi ci kattanu yàlla ki mom képp ku ko def taggo nga ak ñak te itam insha allah fitna aduna yàlla dina la ci musal te lima wax ni kenn mënul wax li ci aju ba mu jeex ah te ñi xam bu ñu déggee li ko composé yëpp dinañ xam ne fa tabaarakallah xëy na kon loolu ñoo ko euh, baaxee mbokk yi incha allahu euh, képp ku ko utiliser yàlla nga ci gis njariñ yàlla na yàlla defar sa àdduna defal sa àllaaxira incha allah su ko defee kon xëy na euh, suñu temps moo jeex loolu lañu leen indi loon ci seen émission bi di njëriñu alquran ci suuratu yasin guñu ci ñu jox rendez-vous ci euh, mardi di Inshallah, RTV Dakar Business Pour vous satisfaire sur vos commerces, import sport, sérigraphie, décoration, flocage, t-shirt, casquette, Panneau publicitaire gadget. Enseigne lumineuse. Adresse Marseillor 77 143 86 98.